بابتداء وسيلتي عليه السلام علي مولي سافسوي وكل سلم وسرين ورسلة عن المصطفى بك تالبي ñoo ngi fii ci bis bii nga xam ne sëriñ Jili at mu jot sëriñ Jili Mbàkke moo koy taxawal di ci fàttali ko di sant waajuram bu baax a muy sëriñ Saam Ndula Serigne Sam Doulé mi nga xamante ne lu waaye gàtt gàtt nopp dégg nga ko ci yoonu moom muy Serigne Sam Doulé at mu jot seen jiiri di ko amal waaye di def train bi ki nga xam ne moom cër bis bi Alaaji Baara di ko ci fàttaliku saa yu ko seen jiiri woote nag bokk yëpp ñëw ànd koog moom bu mu bokkal Serigne Sam Doulé tey ji fekk waaye yoonu moom yëpp ñu ngi jël kàddu gi jox seen jiiri. waroon a wax sëriñ Abdou Lakaram bi nga xam ne ñoom la fi sëñ Fallu sëñ Sam di xalifa bi yebal nga xam tey jii ñoo yor kàddu gi ndax ñoo fi teewal sëñu léegi ñoo fi sëñ Fallu dama ko jox kàddu gi rek sëñ Abdou Lakaram bu sëñ Fallu sëñ Sam bu defee mu yeggale li ñu waroon a wax. kàddu yi nga xam li moo des ci kàddu jox ko sëñ Abdou Lakaram moom sëñ Fallu moom sëñ Sam du la di mbokkam di léppam. di doomam di léppam di xaritam kon ñu jox sëñ bi kàddu bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa mawlana وعلى آله وصحبه سوير الدوان mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaar ku ci nekk sa tur sa sant di jiital ci nuyu bi Cheikh Mountakha moom Cheikh Amadou Bachir mi nga xam ne moom la sama borom dagal Serigne Touba tey di ko suuf di nga ñaanal sama borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér leen sama Serigne Touba gi wàcc ba ci Serigne Fallou mi nga xam ne mooy Serigne Samba Kandoor tey ci kaw suuf ñu ko ñaanal sama borom yàgg ko fi lool te maandu ko ak mboolem njabootu Serigne Touba gi ak mboolem njabootu sëriñ Samba Kandoor bi noonu la ñuy nuyoo itam sunu waajur bu baax mu sell mu tedd tey bi suñ bay ji bi moom sëñ Sam Mbacké Ndiolo ak xam ne ñu ngi ci dëkk dafay mel ne kon kàddu yi dama koy tënk lool ndax xëy na guddi na sama kilifa yi yàkkamti nañ lool ma jëggal kàddu yi bu baax baax itam tey ji nag lañ doon fàttali ko jàmbaari l'islam muy Serigne Sam Mbacké Ndiolo radiyallahu anhu ci tënk dama lay wax ab juddoom ba noppi sëñ Sam sëriñ bi mag bi si jëmm moo ko jëdde woon sëñ Mamour Diarra daan ne wax baayam sëñ Modou Fati ne ko waaw bëgg ñu tuddee sedd ma jaarale ko ci moom sëñ la waaye waajuram tudd sëñ Mor Soxna Bousso la waajuram tudd Ahmadou Dieye la waajuram tudd Ibrahima Xawa ña si jëmmam la waajuram tudd Ibrahima Xooñ ak doomi maam Maharam la waaye guddi gi li mi am am solo dafa def lu ëpp solo loolu muy jaayante dafa jaayante ak sëriñ bi jox ko juddam jëpp jox ko alal jox ko dara jàmm jox ko léppam ba desutu dara comme ni sëriñ Tuubaa jaayante na rasulullahi nu mel noonu kenn mënu faa yegg waaye mu jaayante ak moom asaka asaka ja jaayante ak sëriñ Tuubaa ba desutu ak moom dara li sëriñ Tuubaa di sedd mag ñëpp mu sedd ko ko ci saahir sedd ko ko ci baatin sëñ Sam doonoon ab julit doonoon ak stor doonoon taalibe sëñ Tuubaa doonoon gëmul sëñ Tuubaa lool te bëgg ko musta bëgg lenn wala mu yittewoo lenn lu dul sëriñ Tuubaa waaw nampatal ci ak njabootam itam di tàmbalee sëñ Fallu wàcc ba ci sëñ Seexuna wàcc ba ci sëñ Saaliw mi nga xam ne moo ci ci gën a féete gën tànk ba ci soxna Daba ba ci si doon tu tànk ñëpp ak jullite ak doon taalibe daraja ji bëri na martaba bëri lépp bëri na waaye loo masaana wax rek am na bés ku may nettali léegi ne ma sëñ Abdou Lahad ko masa woolu nee nañu ki koy woo dafa agsi ci buntu bi rek si buntu kër bi ñu naan sëñ Sam ñu ne ko ñu ne ko na mu agsi ñu ne ko sëñ Abdou Lahad damay woote xaarul oto oto bi wàcce nga xam ne moo doon indi ay bagages am ci dugg jëm jëm benn wuyu si ñëpp laat nee na bu màgsee bu màgsee fekk ñu ne si ñëpp laat ñu noonu jëmaat Touba mu duggaat ci oto bi jëmaat Touba bi ñëw ba yegg si oto bi si ñëpp laat mu ne ko déet bul <laughs> na muy def nag def nag def oto ba yeexoon doxee lool chauffeur bi ne ko nag am naa ndigal double ko mu ne ko waa diglu ta nga daw ndànk tànn teg tegin nee na sa oto bi daay dem ba yomb si ñëpp laat rek nee na sëñ Sam wàcc génnaat dañuy taxaw ci télé bi taxaat sëñ Abdou Lahad doonoon ko amuk télé bi te ko amoon daraja ndax mag ñëpp di jaayante woon Serigne Touba ni mag ñëpp jaayante woon noonu la jaayante li Serigne Touba sédd mag ñëpp la ko séddee loolu maa ngi bëgg yéen ñëpp ngeen xam sëñ Sam ak Abdou Lahad Ascor la li Serigne Touba digaloon ca la ne cib tënk ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di rafetlu jotaay bu baax a baax ndax nii rek lañu ko sama borom digale ndax fàttali moom day jël na biir chaque fois ay na si kaa tànn xool moom kon yëpp day dugg ci biir ñu ngi leen sant bu baax sëñ Abdou Khadre tam ñu ñaan sama borom yàggal fi lool te maa ngi wér di siyaare Seydina Omar mi nga xam ne mooy doom sëñ Fallu di suñu kilifa jiite euh, suñu muy suñu jëw ndax moom la sëriñ bi yónni ñu ànd ak moom ak mboolem njabootu sëñ Sam gépp sëñ Modou Bousso Dieng mi ngi toog ñëpp ñu ngi toog ñu ngi siyaare ñëpp di sant ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi leen nuyu yéen waa 24 um, ci seen liggéey bu rafet gannaaw bi loolu jàll fu war a suñ teewaay mooy suñ jiili mi suñ rakk la suñ xarit la suñ kóllëre ci ñaari yëf mooy lu njëkk li mooy ñoo bokk sëriñ bi ñaareel bi nga xam ne moo waroon na njëkk te ëpp solo mooy Euh, bis bi ci ñi ko tuddee ñëpp sax suñu mbokk lan muy soxna moom ak soxna May ak euh, ak euh, ak Jili Surang ki ko ñeenteel nag mooy Jili Mbàkke muy sunu mag ñu bokk suñu maam Mor mu suñu Masamba daanaka man ak moom di ay tofo di ay seex daanaka man ak moom ay seex lan mu yar ma it ndax it bi ma jógee ci daara ji moom laa fekk ci kër gi ñu nekkoon benn man ak moom ay mbubam dama ko daan sol daanaka lu ñu bëri sax euh, aw meloom moo ne ci man gannaaw bi ñu bokkee bàyyi di sama colère ci lu yàgg. di sama xarit tamit daanaka man ak moom ñuy benn. ñaareel bi mooy ñu tuddee ma maamam maam Cheikh borom Gaawaan. <coughs> donc loolu taxoon na mu ma. yenn saa yi bu daan xaw a mën moom seytaane xaw a wala ñu wax danaan yow dama laa fonk ngir maam Cheikh Anta mi maam Cheikh Anta mi la tuddee. ba tax na loolu amoon na taxoon na amoon ci moom cër ba tax na lu ma neex laa ko doon def loo xamante ne ni rek waxuma ne lii kat wër koo def daanaka bu ma neexee du ma ko defee du mujj fenn ndax li taxam du mujj fenn mooy cofeel gu mu amoon ci woon fonk ma ñaareel bi mooy ñooñ nga xam ne jiitu nañ ñu xam ne dañ fee nekkoon ak ñun te it adduna mooy doxee noo xamante ne nii <coughs> kenn du fi des ku dem ku ne rek na ngaa jiitu toog fa dallu di xaar di xaar sa morom ba tax na ñuy rafetal ñun ñëpp nañu bokk di rafetal di yéeneente jàmm di waxante lu baax suñ ginnaaw lu nit am ñu yéene ko ko te doon benn defe naa loolu it mooy leen njàngale Serigne Touba mi nga xamante ne ni saa su ne moom la ñuy xeeñtu ak di di ci nab nabi ñu gën a góorgóorlu te xam ne adduna moom amul solo daal nga adduna amul solo donc ñu ñu ngi leen di ñaanal ci bar sàq bar sàqul Muhammad yee gën nekk yàlla na suñu borom waaye fa suuf seen kaw te xaral àjjana ci ye gën a kawe sañ jili mi day suñ coloré nit ku ñàkk ñaan ndax nit lu mën a nekk ci yow rek saa yoo bu fekkee amoo kiñaan rek daanaka sa sa mbir mën naa mën nañ ci yaakaar bu baax te moom mi nit ku ñàkk kiñaan la ba tax na sax man euh, ngoon gi sama yaram dafa xawoon na mel ne lu xaw a taayal mais mënu ma a ñëw ma cee ñàkk bañ a ñëw wax dëgg yàlla ñu ngi koy rafetlu bu baax di ko sant di ñaanal Sëñ Tuubaa defal ko tawfeex fi mu bëgg a àgg yëpp mu àgg fa yéen tamit ñi ñaanal bu baax salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa mbokki julli leen di nuyu jiital ci nuyu boobu Euh, di sant yàlla bu baax ci jotaay bi sant yàlla bu baax ci teewaay bi di wax ni bés bi dañ koo def muy bésub sant Serigne Touba sant Serigne Sam dara jaale ko alaaji baaram sëñ Fallu doon ci rendre hommage soxna May Mbacke mu sëñ Sam Dula ak soxna Mooy mbakke mu sëñ Sam Dula ak Serigne Jili Mbacke mu Serigne Mamar Masamba ak Serigne Jili Sorang ay tay nag danoo gën a bëgg lool sun xol gën a sedd ci teewaayub sun maam ji. di sëriñ siidi Mbakke mu sëriñ Mamor Mbakke moom Cheikh Massamba eh, ku ne xam na ne jamono ji Mbakke temps amut waaye nag bàyyi nga sa yitte yëpp bàyyi sa lépp ñëw taxaw ci bis bi taxawaay bu rafet te jàpp ci jàpp goo xamante ni xam nañ ko bu baax Mbakke at mu jot nii lañ koy ànd ren nag da nga koo gën a feddale bu baax ndax sëriñ Jili sëriñ Jili nag xam naa ne Mbakke doo mën a wax ci moom ndax sa ak moom li nga wax lépp xam nañ ko waaye Mbakke loolu lépp ci yow la ne te kóllëre gën seqoon ak moom dañ ko fas yéene ànd ànd àggale àggale ci yow te yow Mbàkke da ngaa nangu lépp ñu ngi lay ñaanal sa liggéey gën a yokk suñ borom taxaw la ñi ngay taxawoo yoon wi ak ñi ngay taxawoo sones bi di def ay social loolu Mbàkke dana ko ñaanal bu baax foofu nga nekk ci liggéey bi ci parking yi di liggéeyal Sëñ Tuubaa waaye teewul jaamu yàlla gi lépp yoon wépp dañ lay roy kon ñu ngi sant bu baax di sant 24 actu ci teewaay beeg lépp di dalal bu baax di wax ni sëñ bi suñ kilifa la lépp la moo taxoon ñu ci doon sànni ay kaddu asalaamaaleykum wa